nit daf lay teg ay série d'épreuves da ngay defe ni yow yàlla da laa singali fi toll nii moom Ousmane dafa mel ni suñu borom da koo singali oui parce que léegi dafay enchaîné mais yooyu ak mu àndal yooyu yooyu soo dee aji gëm hmm. te Ousmane loolu la parce qu'il a un leadership spirituel très fort euh, soo ko dékkoo rek ndama ci topp c'est-à-dire que Ousmane li muy dund disons de mille vingt 2021 disons-le comme ça hmm. jusqu'à aujourd'hui presque cinq ans disons comme ça mais nit moom lay dund ci vingt sept ans d'opposition te li muy dund non seulement moo gën a tar en intensité mais sax moo gën a bari sax parce que jamono yi Ablaye Wade. Hmm. veille élection la ñuy la ñuy ñëw ñu perturber li ñuy perturber après bu jeexee yooyu mu demaat. Hmm. ba élection jot mu ñëwaat. Hmm. mais kii moom c'est presque en feu continu 2021 ba léegi gis nga il est en feu continu. et puis dans l'intensité aussi. est-ce que comprendre maanaam lu gën a tar. très bien lu ñëw rek gën a tar mais cest que sunu borom. Euh, souvent aussi noonu lay doxalee ay ay. mbiram euh, ay man damaa jàpp ne Ousmane. dafa nekk ci genre formation accélérée maanaam épreuve yi dañ ko koy dajaleel xam nga bu gën a tar ñëw sa moroom pour que euh, mu immuniser wu. ah waaw xam nga moom nu mu jikkoo moom dafa jikkoo jikkoo jikkoy boppam ay jikkoom peut-être moom fa mu bokk. Hmm. te jikko yooyu. peut-être peut-être euh, doyul rek pour nga mën cee yorub réew. est-ce que ah, comprendre nga. waay waaw parce que euh, boobu. Hmm. sa dënn dafa war a yaatu grand. et puis da fa mel ni da war a am carapace. dafa mel ni donc carapace bi ko manqué woon. Hmm. suñu borom moom la koy def moo tax muy def ay série d'épreuves des des des ay ay ay ay ay ay ay poignards sur le dos ay attaques ay ay ay wor. Hmm. te te peut-être ah peut-être euh, pare gu ci ah. peut-être que au niveau de Pastef ah. Euh, dans les jours à venir euh, di nga dégg ay peut-être ay défection ay gars yu dem wala et cetera et cetera. Ah cest dire que bon ci ci ci ci ni ma ko xalaatee. Euh, mais ce qui est sûr mooy épreuve yi te ñu nekk ci ci cat li. bu ci Ousmane génne il devient un nouvel homme politique en fait c'est-à-dire que il ne devient plus. Euh, le lanceur d'alerte qu'il était. Hmm. Il ne devient plus le syndicaliste qu'il fut. Il va devenir un homme politique avec sa carapace nécessaire pour pouvoir euh, recevoir, voire même prévenir ou bien anticiper euh, sur, euh, euh disons, euh, les vicissitudes de la vie. te dina ci génn. absolument absolument parce que ba tey Ousmane reste. ba fa mu ne l'hyper favori euh, de la présidentielle 2024 il reste l'hyper favori de la présidentielle. Ousmane ba tey ba sànq. tey ba sànq parce que juridiquement juridiquement Ousmane est encore éligible ah juridiquement Ousmane est encore éligible. mais nooy comprendre ba nii jafe na xëy na ay jege jegeñaale ñu accéder ci moom. waaw mais loolu loolu man voilà loolu information jëm ci. même ay visitam mais mais mais loolu tooñ la ma euh, fii. Euh, ñoom Alioune Tine hmm. euh, ñoom Seydi Gassama hmm. euh, xeexkatu droit de l'homme yëpp démocrate sénégalais yu Sénégal yi les gens pris de justice les progressistes hmm. Ousmane Sonko lii ñu ko teg ci hôpital bale du dëgg du yoon et j'interpelle le président de la République son excellence ma Sall et j'interpelle le premier ministre Amadou Ba parce que Ousmane Sonko dañu ko jàpp bu ñu ko jàppee ay mbokkam ñëw di ko indil ñam bu mu lekk. ñu ne ko du nga duñ la ko jox directement. dafay hmm. jaar ci administration pénitentiaire mais comme Ousmane moom wóoluwu leen donc bu xësee ba jaar ci seen loxo moom day far gedd ñam loolu et c'est son droit le plus absolu c'est son droit le plus absolu hmm. xam nga fan yi ñu ngi doon wax naan euh, dafa amee Euh, oui oui euh, insuffisance insuffisance rénale oui. en fait c'est pas dafa ñaari façon insuffisance rénale en fait du insuffisance rénale en tant que maladie loolu mooy phase terminal hmm. mais nit doomu aadama boo gis ci àdduna mu toog ñetti fan. ñam duggul ci gémminam ndox dugg ci. day commencer développer une forme d'insuffisance rénale. benn bi ciy nekk maladie nag mooy boo dem bi ngay def defi dialyse kon donc Ousmane ci fi ñu doon waxee. Hmm. début bi. nekkul woon ni euh, insuffisance rénale du point de vue maladie. Hmm. mais heureusement heureusement ba sax commencé waat na lekkaat tuuti. pour que mu bañ a développer ci foofu. Hmm. mais c'est-à-dire que man mënuma comprendre et puis loolu sax dafay arranger sax administration pénitentiaire parce que yow bu fekkee yow danga war a jox ñëpp lekk. te ñëpp xam nañ lekk prison yi demeewul noonu. Hmm. su fekkee am nañu koo xam ne dañ koy indi lekk. mais moom la ngeen ko waroon jox sax ngeen jox ko ñeneen ñi sax ñu mën a euh, xewlu. Hmm. et ça c'est son droit le plus absolu Karim bi mu fi nekkee bu ñu ko daan indi ñam ci bool nañ ko daan def def ko kànnaar ah. moom bu ñëwee mu doog dindi kànnaar hmm. bi mais ñëpp xam ne mais euh, li dul dëgg du yoon. Hmm. mooy que la la la la famille de Ousmane Sonko ne puisse pas remettre mais à main à Ousmane Sonko lu muy lekk. muy jaar dès lors que rapport de confidentialité toll na ni. mais le minimum kay nit boo ko demee ba jàpp ko ba tëj ko sax mais bàyyi ko kay mbokk moo tax euh, loolu moom bu ci gars yi jógul. Hmm. ñun góorgóor yi dinañ woo Sénégalais yëpp ñu tibb bool ñu dem euh, fële. fan euh, hôpital fa mu nekk. ku ne taxaw ak sa bool. mais mais du dëgg du yoon quoi nañ ko nañ ko ba quoi jàpp nañ ko ba pare. nañ mais moom nee na wóoluwu leen. comprendre. Hmm. wóoluwule. mais mais am na droit bañ leen a wóolu. est-ce que jéem nañoo comprendre aussi administration bi li muy li li waral moom xëy na bëggul. waaw non xam nga en général principe administration. mooy dañuy bañ ni lekk gi ñu ciy dugal. ay yeneen affaire ak yooyu. c'est ça est-ce comprendre c'est ça waaw mais euh, ni fi ñu ci toll. Hmm. ci kaw euh, Ousmane Sonko. Hmm. je pense je pense à l'état actuel. Euh, après l'avoir privé de tous ses droits après l'avoir euh, indi ko ci fiñ ko indi yëpp néew mais je pense que bàyyil ko mu indi boolam lekk mais euh, mais je pense que c'est c'est un minimum d'humanisme quoi. Mm. waa c'est un minimum de d'humanisme quoi parce que tamit ëllëg lu ci mënti am. Mm. mais ñoom aussi ils ont une part de responsabilité parce que man grand su ma la wóoluwul. mais wóoluwu ma la. j'ai le droit wóolu la wala bañ la wóolu n'est-ce pas du par force laa la war a wóolu comprendre comme moom système bii lay xeex hmm. état bii lay xeex am na droit ne man samay yëf dee leen ma koy jox directement je pense ça c'est un hmm. kon donc ñu ngi ñaan waaw dañuy ñaan euh, pour plus d'allègement euh, d'abord ñu koy ñaan directeur de l'administration pénitentiaire ah disons disons le disons le comme ça di ko ñaan euh, gouvernement du Sénégal di ko ñaan euh, président de la république. Mm. voilà di ko ñaan ministère de la justice et tout tout tout. Mm. Euh, su fekkee daal affaire bu ñu bëggee affaire grève de la faim yi. oui euh, ci kaw Ousmane. mu mu ñu ñu ñu trouver ci benn solution. Hmm. je pense que ñoom aussi de leur côté ils doivent faire un acte quand même te pour man l' bi ñuy defee mooy bàyyi euh, moom ñu indil ko ay añ. Hmm. Euh, ku mu wóolu añam mu jël sa añ yooyu mu añee ko ndekki et cetera et cetera. oui mais et et, oui. et, pour lancer aussi un un, un appel. à à, du Sénégal au gouvernement. Hmm. du Sénégal et à Amadou Ba. parce que tey jii dama lay jox rek dama pour ne pas trop citer. mais ñoom Cheikh Baara. ñoom Cheikh Baara Ndiaye maa ngi doon ñëw d' ailleurs parce que y' a une inquiétude su ma jëlee par exemple poste ki nga xam te ne mooy Cheikh Thioro. Mhm. Mbacke bi mu posté sànq sur Facebook di wax ne am na ñu bëri ñu koy interpellé ci kaaw Cheikh Baara. pour mu joxe ci ay information moom mu ne lott na ci joxe information parce que ba fi ñu ci toll même soxnaam bi ñu doon bàyyi ma ko doon gis. Mhm. jafe na pour. mu accéder ci Cheikh Bara mu jeexale ci ni lan la nguur gi nëbbu waxuñu en réalité dëgg lan moo am ci situation Cheikh Bara moom noonu la ko waxee mu ne njàqare la am. Mhm. ci situation fi mu toll ndax moo tax yëpp bu ñëwee dollee tout à moo tax dañuy ñaan dañuy ñaan parce que tamit euh, ñun ñëpp ay sénégalais mm. lañu. comprendre nga ñun ñëpp ay aji gëm nañu. Mm. ku ci dul catholique jullit nga. Mm. comprendre nga. Euh, nekk dans les liens de la détention ne veut pas dire aussi ñu déshumaniser la aussi. Ah. parce que je pense que euh, la condition humaine aussi doit prévaloir en toutes euh, circonstances. donc ñi ngi ñaan administration pénitentiaire euh, autant que faire se peut. Hmm. dans les limites des prérogatives que leur donne la loi lu ñu ci mën a alléger les conditions de détention ñu ngi leen koy ñaan ñun góorgóorlu yi. Hmm. nañu ko def comprendre nga. parce que euh, ñu jàpp la privé la sa liberté rek loolu rek dafa doy naqar dafa doy problème comprendre nga. donc euh, bu ñu la bëggee dolli say mbokk du ñu lay gis. Hmm. Euh, ñam yu fay ñëw. mooy loolu. kon donc je pense que. Euh, am na lu ko gën kon donc dañuy ñaan parce que boo xoolee ñi gars yi ñu ngi fi bëgg a bëri ñoom Mapate Mbaye justement ah, ñoom Cheikh Bara hmm. euh, fan yi passé am na benn Jim euh, waaw et fan yi passé am na benn dame Adji Ndaw elle était venue en vacances elle de Pastef elle euh, était en vacances de Suisse euh, gars yi jàpp nañ ko ci biir d'ailleurs sa famille n'avait même pas de nouvelles mais ñoom Fadilou ñoom Bassirou euh, ñoom ñoom Pape Omar Touré ñoom Omar Diagne Pape Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye Touré Cheikh Omar Karim Kourou Karim Xurum Xaax waay Xurum Xaax ñoom Fadilou moo tax dañuy dañuy dañuy dañuy ñaan ah. hmm. ñun góorgóorlu quoi que Euh, véritablement le le, le, le, le système judiciaire ah le système judiciaire vraiment le système judiciaire euh, magistrat yi ñuy toppatoo affaire peine yi hmm. euh, mais aussi l'administration pénitentiaire ñun góorgóorlu yi dañu bëgg a ñaan vraiment si on peut trouver hmm. une solution parce que bu fekkee Juan Branco moo ñëw suñu dëkk am fa traitement bu demee nii. Hmm. bu desee ñu ni ñu ni ñu ni neen ñun suñu biir. Hmm. war nañoo mën di dawal yërmande tamit quoi. ndax xam nga lu xew su fekkee yërmande boobu. on est capable de le faire pour tubaab. mais je pense que ñun ñii ñëpp war nañoo def yërmande parce que. au delà de su dee yërmande la sax ci tubaab ji est-ce que du li nga doon euh, invoqué. très parce que finalement finalement Sénégal euh, Alaaji Mansour Mbaye day faral di wax benn moom mais gars yi duñ ci bàyyi xel. Hmm. mu ni Sénégal benn bopp la kenn xanaa gis nga Sénégalais boo jël. soo creuser ba quatrième maamam da ngeen am lu ngeen bokk. soit ngeen bokk ko ci deret wala ngeen bokk ko ci dëkkandoo. Hmm. te dëkkandoo. Hmm. yonent bi doon na wax ni. foor na foor boo xam ni. ëllëg dañ la koy laaj. ëllëg dañ la koy laaj te moom sax foogoon na ni euh, bu nit génnee àdduna. dëkkandoo dafay doon fii bu ñu fa creuser ñeenti maam rek. soo bokkul ak moom deret hmm. bokk nga ak moom mbokk la ci dëkkandoo dëkkandoo bu yàgg dëkkandoo bu rafet kon ñun ay mbokk lañ waaw ñun ñëpp ay mbokk nañ euh, administration pénitentiaire justice gars yi ñu fa jàpp ñun ñëpp ay mbokk nañ kon donc nañu ko nañu ko rafetal rek d'autant plus que euh, gars yi tamit ñu ngi fay bëgg a yàgg quoi hmm. ay neuf mois huit mais justement appel bi ngay def nii ñeneen di ko def ñu xeex pour ñu bàyyi ko mais on a comme l'impression que ne dégguñu wax jooju est-ce que Siré xam nga lan moo nekk di xew jamono ji non non non damay am damay am ay écho rek euh, de part et d'autre damay am ay écho de part et d'autre di ko analyser mais daf mbir. écho yi comme quoi par exemple. waaw euh, bi ngay wax nii que ni xëy na am na lu ñuy waajal foog ñu yeggali mbir yi ba mu yegg ci cappaandaw ga. ñu àtte leen ñu xam liñ leen di wax ndax looloo am. wala amul dafa mel ni euh, foofu lañ jëm. moo xam Ousmane Sonko ak ñu àndal ñi nekk jamono ji ci kaso bi. mais ci liberté provisoire bi ñaanal dañ koy dañ koy. dañ koy dàq très bien loolu dàq ñu ko de mais fii ba keroog ñu leen di àtte mën na am pexe ba keroog ñu leen di àtte c'est-à-dire que solution bi rek c'est pas seulement ñu emprisonné leen mën nañu am liberté provisoire ñu ñibbi seen kër seen njaboot bis bu yoon pare liggéeyam mu woo leen devant euh, devant tribunal ñu àtte leen cest à foofu laa bëgg a expliquer cest à nekkul ni tëj rek moo fi solution hmm. d'autant plus que tëj nañ leen daanaka léegi mu mat at comprendre nga koo tëj nag daanaka léegi mu mat at te yow dossier bi am na ci ñoo bëri xam seen dossier instruire ko ñii yaa ngi koy doog a commencé instruire